bismillah alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala ibadihi allazina stafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu mbokki As-Samadiyya ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara fas yéene dikkaat ak yéen rek ci bind bi ñu leen baaxoo andil ci téere bi tudd Irwaa'u Nadiim min azbi hubbil xadim te Cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana bind ko ci jaar jaari Cheikhuna Ahmadul Xadim mu mel ne kon tey moo war a nekk bindub Eh, ñaar fukkeel incha allah ci page cent quarante neuf ci mool boobu nga xam ne moom lañ moole woon maghrib mu ne wazakara tudd na moom sëriñ bi min karamatihi mu bokk ci ay karamaam fil baxri ci géej gi annahu naka moom asbaxa xëyoon na yowman bis wa tahayya ate mu waaj ila xidmati rasulillahi jëm ci liggéeyal yonent bi yàlla bi sallallahu taala alayhi wa sallam qaala mu wax ne fa iza ana amti lu may man rek laa aqdiru duma man li wajain ngir mettit amma wow matale na badani sama yaram wal xaalu te lay mbir moo de anna raïsan naka kilifa min arkaani dawlati kook bokk na ci kenoy eh, nguur gi baytu kook ab néegam xawla bayti yi nekk na ci wetu sama nék yeta xal ma ngay yëngatu fii daxkihi ci ak ci ak reetaanam maa asxaabi ay moroomam ànd ay àndandoom fa qultu ma di wax allahuma yow buur bi innaka naka yow day taalamu da nga xam maa li nga xam ne tahayyatu waajoon naa la hoo jëm ci moom ba ma li nga xam ne aaqani gàllankoor na ma an walis ko fa asaluka maa ngi lay ñaan allahuma yow buur bi an tanqula nga tuxal maa li nga xam ne bii nekk na fi man ilaa man jëme ko ci koo xam ne taxisu day jàpp ma allahi ànd ak yàlla ilaahan buur aaxara beneen fa isa bihi amti lu may ci moom rek ya innu ma ngay wonk wa anaate man aktubu maa ngi bind sëriñ bi tudd na di leeral eh, mu ne bokk na ci karaamaam yi nga xam ne sunu borom baaxee na ko ci nekkee ci tukkib géej gi am na bis boo xam dafa xëyoon daal di waaj ba jekk jëm ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko baaxoo defee nee na ci noonu rek nee na tawat daal daal dina yoxoos ci aw yaramam tawat joo xam ne daa matale mboolem yaram yaram wi diis diis gan ba mënatul maanaam ba mënul dara daal nee na fekk am na kenn ci kilifa yi seen nguur gi koo xam ne ab néegam dafa den ak sama néeg maa ngi ko dégg muy waxtaan ak ay moroomam bay ree di xaqataay ca kaw nee na ma daal di dayaaleeg sama borom ne ko sama borom yow de li ma li ma jógoon jëm ci xam nga ko te mooy liggéeyal sa sa yonante bi sallallahu alayhi wa sallam li ma gàllankoor it xam nga ko te mooy tawat si maa ngi lay ñaan nag nga tuxal ko jëme ko ci koo xam ne daf lay bokkaale ak keneen wala leneen naka la sama kàddu daanu rek ne ma dégg waaja di onk ma daal di xam ci saase ne tawat jëlañ tuxal jëmee ci moom dégg nga ma ma daal di ne bëreet ànd ak cawarte jëm ca mbind ma ak ca liggéey ba wa zakara ma tudd ne min karaamaatihi bokk na ci ay karaamaam fil baxri ci géej gi àndahoo naka moom kaana nekkoon na fi baadil mawaadii ci lenn ci barab yi wa qalla tamir moom néewoon na lax mi am aw yàpp fii ci mom wala yustaamalu daa daa weesul jëfandikoo xaaliban ci li a not illa alxaytaanu ndare jën ya assixaaru ya di way ndaw ya di way ndawe almasnuatu ya di leen liggéeye fii wiaain ci ab pot min xadidin ci weñ gu ñuul wastaamaltu ma jëfandiku ma jëfandiku minhu ci moom yowman bis falamma faraxtu bi nga xamee ne noppi a xasaltu raxas naa yadi sama loxo wa baalaxtu tama jotal fil xasli ca raxas ga xataa bi turaabi ba ci ba ci suuf sax wa saabooni ak saabu wa bi kulli ma ak ci lépp loo xam ne yoo aalaju def na jànkonte bi ci moom arraihatu xet ga falamma xamamtu ba nga xamee ne itti woona bil xidmati ca liggéey ba wa sharaatu tama door xiila waxees lii ñeel ma ne ma wa minhum allazina yuzuuna nabia am na ci gaañi ñoo xam ne dañuy lor yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fa fasiatu fa fasiatu ma daal di tiit fasaan am tiit shadidan mooy aji tar wa ni daal di may jàqaloo ma li nga xam ne dëhaanii jommal na ma wa min yawma izin ca bis boobee nag taraktu laa bàyyi isticmaalaha ah, seenug jëfandikoo bal li fi ne wa mutlaqal xiitaani ak lu ñu boyali jën ya wa jaaltuha tama def leen minal mabiaati mu bokk ci yee ñuy jaayante sëriñ bi nee na bokk na ci karaamaam yi nga xam ne suñu borom maanaam defal na ko ci géej gi nee na am na bis mu nekk ci barab ci barab yooyu mu nekkoon ci géej gi ci tukkib géej gi fekk barab boobu mu nekk maanaam ken kenn mënu faa gis aw yàpp waaw dara lu bokk ci yàpp daal daanaka kenn du ko fa gis nga xam ne la ëpp ca lañ daal mooy jën yooyu nga xam dañ koy liggéey di ko kaste ci ay pot poti weñ yooyu moy yi ñu tuddee poti sardine poti sardine yooyu daal nee na moo fa gënoon bari moom lañ daan ëpp jëfandikoo ni nga xamee yaram doomu aadama moom mënut a ñàkk jëfandikoo lu aji ci aw yàpp wala yu ne mel benn bis nee ma daal ci ma daal ci jëfandiku ci benn bi nga xamee ne noppi naa nee na ma daal di raxas sama loxo dégg nga ci lépp loo xam ne jàpp naa ne lu mën a lu mën a setal la lu mën a setal aw yaram ak niinaay ak moo xam saabu la ba ci suuf sax nee na raxasoo naa ko lépp loo xam lu mën a dindi xet rek nee daal di yóotu sama xalima fas yéene ju eh, jublu nag ca liggéey ba bi ma tàmbalee rek nee na kàddu ku wàqante sunu borom dal ci sama kaw nee na daal di ne wa minhum allazina yuzuuna nabia am na ci gaañu ñoo xam ne day dañuy loro yonante bi ma daal tiit tiitaange ju tar dégg nga daal di am njàqare ci bis boobee la la laa daal di bàyyee jëfandikoo ci jën yooyu le poti sardine yooyu le ak sax lépp lu xeetoo jën rek lépp lu bokk ci rek moo xam yu mag la moo xam jën yu ndaw la ma daal di koy boole ci yi nga xam ne ñoom laa jaayante woon ak sama borom ne dootuma ko jëfandikoo ngir jëm yàlla sëñ bi nee na wa yawma bi'tuha bis ba nga xamee ne jaay naa ko jaay naa leen aw qariban wala lu ko jege wala lu jege minhu ci moom atat nii dikkal na ma akbaashun ay xaaf minal asxaab yooyu tu nañ ca donga ya samanan mbir mu muy njëkk mu àjjalan guddi gun gaawe lil xaytaani ñeel jën ya haza jàppal lii jàppal lii bis bi nga xamee ne nee na ci laa jaaye maanaam jën yooyu le bis bi nga xamee ne ci laa ko jaayante sama borom ne dootuma ko jëfandikoo ci bis boobu wala ca ëllëg sa rek la ay xaaf maanaam ay ay xar yu mag ñëw jóge ci réew mi bàyyi ko ci réew mi nga xam ne lenn ci magi taalibe yi dégg nga ak seex si ñoo ko ñoo ko yónnee mu nekk di njëg goo xam ne mooy njëgu jën yooyu ma jaayante woon rek waaw Eh, njëgug jën yooyu ma jaayante woon moom la sama borom fayee xaat ci saase dégg nga maanaam ma di koy gis noonu ay taali bi daal jógee ci réew mi ñëw indi maanaam xar yooyu le mu nekk addiyee yun ma indil mu ne waqad kaana nekkoon na maay ànd man fil baldat ca dëkk ba ruhbaanun ay labbe na ñooñ danañu jàpp min awlaadi kuffaari sawaadini ci doomi yéefari nit ñu ñuul ñi asxaaban ay àndandoo yaxdimuunahum ñooñ dana ñooñ danañu leen liggéeyal wa yaduruuna ta tañuy wëndeelu maahum ànd ak ñoom baadal asri ci ginnaaw tàkkusaan xawla suuqi ci li wër marché bi wa zannata jortu alxaakimu gouverneur bi ne an nii naka man atmau danaa xemeem fii misli haada ci lu mel nii fa qaala mu wax lii ñeel ma ne ma in chita ndeem soob na la ittaxastu ma jàpp la ka ñeel la min al awlaadi ci gone ya asxaaban ay àndandoo yatamashawna ñooñ danañu doxantu maaka ànd ak yow fa qultu ma wax ko ne ko laa xaajata dit aajo lii di ma ñeel bihim ñoom sëriñ bi nee na dëkk bi ma ne woon dégg nga am na fa ay labbe yu fa nekkoon yoo xam ne dañ daan jël ci doomi yéefar yi ñi nga xam ne ay nit ñu ñuul lañ te ànd ak ñoom di wëndeelu ak di ñoom ci ginnaaw tàkkusaan ci biir marché bi xëy na ngir ñu di leen liggéeyal ak leen yanul ak yu mel noonu gouverneur ba fa nekkoon nag jàpp ne man loolu am naa ci yitte aajowoo naa ci ñenn ci ñoom benn bis ma ne ma boo soxlaa ci gone yii de ma wutal la ci bu ko defee ngay faral di doxantoog ñoom ci jamonoy ngoon di dugg ci marché bi nee na ma ne ko awma ci ñoom soxla hmm. mun wa min awaidi roasail baladi bokk na ci aaday kilifay dëkk ba aydan ba tey an yettaxiso ñuy jàpp min kawa min kibaari sawaadini ci magi nit ñu ñuul ñi lil wuróodi ngir root wa tabxi ak togg wa xayriha ak lu bokk ak ñoom fa talabtu ma daal di sàkku waaxidan kenn minhum ci ñoom yowman bis lil xidmati ngir liggéeyal falamma danaa ba nga xamee ne jege na min nii ci man fa iza huwa amti lu may moom antanu moo gën a xasaw min kulli muntinin ci jëpp aji xasaw fastaqzartuhu ma daal di koy seexlu wa min sama ci bis boobee nag wa min sama ca bi ca foofee a biatu laa jaaye sigaarahum seeni gone wa kibaarahum ak seeni mag kama biatu ni ki ma jaaye woon sigaaral xiitaani way ndawey jën ya wa kibaaraha ak way mage seen mu ne bokk na ci bokkoon na ci aaday dëkk ba ma ne woon dañ daan jël ci nit ñu ñuul ña fa newoon nga xam ne mag ña seeni mag dañ ci daan jël ñenn ci ñoom di leen rootloo a di leen toggloo benn bis nag nee na ma aajowoo ci kenn ci ñoom ngir liggéeyloo ko nee na ma nee na bi ñëwee ba jege ma mu amee xet goo xam ne daal daanaka kenn mënu kenn mënu koo nooyi ma di koy seexlu ca bis boobe nag nee na ca bis boobee nag nee na ca ca laa jaayantee ne dootuma liggéeyloo seeni gone dootuma liggéeyloo seeni mag mhm. kem ni ma jaayante woon ne dootuma jëfandikoo jën wu ndaw wala jën wu mag wa fi hada ci lii qaala la waxe moom sëriñ bi ne xultu wax naa ne wa jaa dikk na samano sigaari njëguk dégg nga way na maanaam njëguk jën yu ndaw ya wa samanul kibaari ak njëguk maanaam mag ñooñee wa sigaari ak ndaw ña muhammadun muhammad xayru imaamin ngën ji imaam mooy ngën ji imaam jaari ta mooy sama dëkkandoo wa fayduhu te baabaani mayam jaarin aji daw la ilaa fu aadi jëm sama xol hmm, nga xam ne lay wax ci ba di wane ne dégg nga jaayante na ak sama borom ci dootuma jëfandikoo jën yu ndaw ak jën yu mag dootuma liggéeyloo mag fa ne ak gone ya sama borom woo mat seen i njëg daal mi koy indil xaat Muhammad moo mooy ngën ji imaam te mooy sama dëkkaale dégg nga mooy sama dëkkandoo te ay baawaani mayam du deñ mukk di baawaan ci sama maanaam ci sama xol ci sama xol wala asxaabu donga ya allazina ña xam ne ataw dikk nañ bil akbashi ànd ak xaafiya hum ñoom muqaddamatu samani si kibaaril kuffaar yi ñooy njëlbeeni njëgi maanaam magi yéefar ya wa sigaarihim ak seeni gone wala akbaasu xaafiya nag muqaddamatu samani sigaaril xiitaani mooy njëlbeeni njëgi way ndaway jën wa kibaariha ak ak way mage seen nee na dong yooyu nga xam ne ñoo ñëw indi mm, xar yu mag yooyu le ñooy njëlbeeni njëguk gaa yooyu nga xam ne ñoom laa jaayanteeg sama borom ne dootuma leen liggéeyloo moo xam seeni mag la wala seeni ndaw xaaf yooyu nga xam ne moom lañ womat indaale nag muy xar yu mag yooyu le ñooy njëgi jën ya ñooy njëgi jën nga xam ne suñu borom daal dina may fay xaat dégg nga ci nu mu gën a gaawee wa tudd na min karaamaati yi ne bokk na ci ay karaamaam fil baxri ci géej gi qaala wax na ne lamma nazartu ba nga xamee ne xool naa ilaa xaali aada yi jëm ci mbirum sama ay noon aada illahi tamuy noonu yàlla maa ngi ànd ak man wa alimtu ma xam ne annahum naka ñoom tamakkanoo jekk nañ jekku nañ min idaayati yi ci samag lor wa idraar yi ak samag lor bi qadaa illahi ci atteb yàlla wa qadarihi akub dogalam wa alimtu tama xam ne an naka lay mbir moo di lawla ximaayatullahi budul ko nag kaaraangel yàlla wa wiqaayatuhu akuk wege akuk fegalam la balaxa kon jot as saylu yol a azuba kej la taraktuhum ma daal leen di bàyyi wa muraadahum ak seen nammeel wa tawajjahtu tama jublu ilallaahi jëm ci yàlla allazi yàlla mi nga xam ne bi yadihi nekk na ci loxoom al umuru mbir ya fanaajaytuhu ma daal dayaale moom fii amri ci sama mbir wa qultu ma daal di wax lii mu ne bokk na ci karaamaam yi nga xam ne suñu borom baaxee na ko ci géej gi mu ne bi nga xamee ne xool naa dégg nga mbirum noon sama noon yi sama noon yi nga xam ne ay noonu yàlla lañ dégg nga mu leer ma ne jekku nañ ci man maa lor nam leen soobe budul ko nag dogalub yàlla akub àtteem kon day eh, béy wey mbuus kon béy wey mbuus hmm. ci ndax mboolem jumtukaay yooyu tax ñu man maa lor dégg nga jekku nañ ko te itam man nga xam ne kaaraangeel yàlla rek moo dox sama digganteeg loolu le bi ma xamee loolu nag laa leen bàyyeeg seen nammeel daal du jublu ci sama borom nag mi nga xam ne mbir yëpp ci loxoom la nekk daal déyaaleeg moom daal di wax baat yu sell yi. mais allahumma yow buur bi innaka naka yow xalaqtana bind nga nu li ibadatuka li ibadatika ngir jaamu la ngir sag jaamu fa qulta nga wax ne wa ma xalaqtu binduma al jinna jinne wal insa ak nit illa li yabudun ndare ngir ñu jaamu ma wa qulta nga wax ne yaa ayuha naasu yéen nit ñi ubudoo jaamu leen rabbakum seen borom fa wafiqa ta taw fee man képp koo xam ne sabaqat jiitu na le xooñeel ko assaadatu texe li samaay jëm ci dégg wa taati akuk topp wa xusila ta gàcceelees man képp koo xam ne sabaqat jiitu na la xoo ñeel ko ashaqawatu texee di fa sudda te eh, te dëddu maanaam te dëddu loos ko anil ijaabati walis ak wuyu wa summa te taxloo te taxloos ko anil nidaa yi walis woote ga nukkuran ngir weddi fa wax fa nga taw feexal ma wa jaaltani ta nga def ma min zumratil ijaabati moom ma bokk ci mbooloom wuyu ga sumrati a ta mooy mbooloom sunu yonant muhammadin ta moo muhammad sallallahu alayhi wa sallam imaamil anbiya yi muy ilimaani yonant yi wal mursalina ak ñañu yónni sallallahu alayhim ajmaina wa zittani ta nga doole ma fadlan ngëneel min ka lool tukkee na ci yow an boo xamee ne jaaltani def nga ma xadimahu may ab liggéeykatam wa xalifatahu tey kuutaayam fii diinihi ci diineem ji wa ummatihi ak xeetam wi fa qaama daal di jóg zumratun am mbooloo min aadaika bokk ci say noon aada an tadi ay noon la hooñeel ko wata sallatu tañu xiirtalu alee ci man li yaxooloo ngir ñu digale bay nii sama diggante wa bayna ibadatika ak diggante sa jaamu wa xidmatihi ak liggéeyalam fa haahum ñoo ngi nii nag ñoo ngi nii nag fii ji fii saayihim ci seen jëf mu judduuna di way farlu wa antata yow yaa rabbi yow yow sama borom xulta wax nga ala lisaani nabiyika ci laamiñu sab yonant xawlan wax joo xam ne maanaahu maanaam mooy an na li kulli ahadin naka ñeel na kenn ku nekk daaran kër fil jannat ci ajana wa daaran ak kër fi naari ci sawara fa isa daxala ndeem tàbbina aljanata ajana kushifa kon wuññi lees la xooñeel ko daaruhu këram ga fi naari ci sawara fa qiila ta waxees la xooñeel ko ne ko haasihi lii day daaru ko mooy sa kër gi lawlam taabut doonte jaamu woo woon allaha yàlla wa xiina abatta waxtu wi nga xamee ne jaamu nga nag wa daxalta ta nga tàbbi aljanata ajana fa hiya moom tuurasu def na ko doon loo kaafiran ab yéefar wa isa daxala ndeem tàbbina annaara sawara kushifa wuññi lees la xooñeel ko maqaamuhu ab saxuwaayam fil janat ci ajana faqiila ta waxees la xooñeel ko ne ko haza lii day maqaamu ko muqaamu ko mooy sa saxukaay law abatta doonte jaamoon nga allah yàlla waxiina lam taabut wax wi nga xamee ne jaamu woon nag wa daxalta ta nga tàbbi annaara sawara fa huwa moom yuurasu def na ko doon loo muminan aji gëm fa iza kaana ndem nekk na al amru mbir ma kazalik niki noonu fa haulaay gaa yi kat fa haulaay a aadaau yi lay noon kat kama alimta niki nga xamee yaslimuuna nii danañu tooñ wa yafaluuna wa ana taman laa antaqimu du ma fayantoo minhum ci ñoom wala addu te du ma ñaan dégg nga te du ma ñaan yàlla alayhim ci seen kaw walakin waaye asaluka maa ngi lay ñaan manazilahum seen kër ya fil janat ci àjjana fastajaaba daal di wuyu li ñeel ma rabbi sama borom wa mallakaniha tam moom loo ma leen falamma taxaqaqtuha ba nga xamee ne wóorul naa le wóorul naa leen ne annaha naka ñoom lii ñeel nañ ma jaaltuha def naa leen hadaya ahli badrin ñuy addiyey waa badar hmm. Eh, si sëriñ bi nee na damaa dayaale ak sama borom ne ko sama boroom yow day da nga da nga ñoo bind ngir ñu jaamu nga wax ci sa téere bu sell bi ne bind ma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma dellu wax ne yéen nit ñi jaamu leen seen borom képp koo xam ne suñu borom namoon na ci moom ak texe démb nga defal ko tawfiq mu dégg wooteeb yonent bi daal di daal daal di koy topp képp koo xam ne suñu borom namoon na ci moom ak texe di démb dégg nga suñu borom gàcceel ko. dégg nga daal di koy dëddloo woote googu mu tëx lu dégg nga ba déggul woote bi bi daal di koy weddi man nag nga taw fee xal ma ma bokk ci mbooloom ñi nga xam ne wuyu nañ sa sa yonante bi dégg nga te mooy mbooloom sa yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy ilimaani yonante yi ñëpp bi nga ma defalee loolu itam nga defal ma leneen ngëneel tax ngëneel loolu mooy danga ma def may ab liggéey katam di kuutaayam ci diineem ji ak ci ak ci xeetam wi am ab kuréel bu jóg nag dégg nga di say noon te di samay noon xiirtalu ci sama kaw ngir dox diggante sama diggante ak jaamu la ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñi ngi nii di def luñ man ànd ak far lool te yow yaa wax sab yonent jottali wax joo xam ne maanaama mooy kenn ku ci nekk ci yéen am na kër ci àjjana am kër ci sawara bu yàlla dogalee mu jaamu yàlla ba tàbbi àjjana dañuy dañ koy wuññil këruk sawaraam ne ko yow de boo jaamu wutoon yàlla fii nga fii nga jëm si waaw boo jaamutoon yàlla fii nga jëm si ginnaaw nag jaamoo nga yàlla ba tàbbi nga àjjana kon sa këruk àjjana gee dégg nga sa këruk sawara gee dañ koy jox ab yëfar bu fekkee jaamuwul yàlla nag gëmut yàlla ba tàbbi sawara dañ koy wan këruk àjjanaam ne ko yow day boo jaamoon yàlla te gëm ko kon kër gii kat moom ngay moom mooy nekk sab saxuwaay waaye ginnaaw jaamoo ko weddi nga ko ba tàbbi ci këruk safaan bi dégg nga euh, kon nag dañ koy jox aji gëm dañ koy jox ab yëfar maanaam ab julit sëñ bi ne ma wax sama borom ne ko ginnaaw mbir yi la demee nag dégg nga te ñoom ñi ngi nii di say noon liñ man lépp ñu ngi koy def di ma tooñ guddeeg bëccëg di def lu leen soob te man duma ma fayantoog ñoom duma leen ñaanal ñaan gu bon du ma ñaan yàlla ci seen kaw mukk li ma bëgg rek kon mooy nga may ma seen këri àjjana yooyu le nee na sama borom ne ma nangu naa sax ñaan may naa la këri àjjana yooyu le bi ma wóorloo ba mu wóor ma ne maa leen moom ma def leen addiyey saxaaba yooyu nga xam ne ñooy ahlu badrin ma jox leen ko hadiya mu ne wa fi haza ci lii yaqulu lay waxe naan ataytu jox naa saxbahu saxaabaam ya manazila ida këri ay noon fil jannati ca àjjana ja lati àjjana ja nga xam ne ixtamat aaru na amman walis ka nga xam ne ada jalgati na in sarafat walbatiku nañ ilal aadi jëm ci noon ya an qasdiha walis seenug jublu wa surifat ta walbatees na leen li sixaabi jëm ci saxaaba ya alxunafa yi way sell mu ne këri noonu yooyu le mu ne jox naa saxaaba ya këri noonu yooyu nga xam ne moom lañ amoon te mooy këri àjjana ya àjjana jooju nga xam ne araam na ci képp koo xam ne kuy jalgat la ku wedd yàlla la wëlbati nañ kër yooyu jëmee ko ci saxaaba ya dootuñ jëm mukk ca noonu yooyu le jaada tabe na lii ñeel ma rabbi sama borom bil manazili ca kër ya la daa taxarubi fa samak tumuranke mu tayiban mbir mu muy aji teeyal lii ñeel ma alxalada xol ba sama borom tabe jox ma këri noon ya bi nga xamee ne nekk naa ci tukki bi dégg nga daal di teyal sama xol inni naka man jaaltuha def naa leen hadaya ñuy ay hadiya li sixaabi ñeel saxaaba ya radiya yàlla doolee gërëm anhum walis leen man yàlla mi nga xam ne xamaa ni aar na ma an saxaabin walis lori aw niir sama borom tabaraka wa taala may na ma këri noon yooyu le bi ma nekkee ci tukki bi teeyal sama xol ma jël kër yooyu le defaat ko hadiya jox ko saxaaba yi maa ngi ñaan sama borom mu dool leen gërëm mu dool leen gërëm sama xam ne moo ma dégg nga ba lori aw niir duma gaar mukk du dal sama kaw mu ne haza jàppal lii wa karaamatul xaybati karaamay tukki bi albaxriyati bi ko jóg géej laa nihaayata déetub yamukaa ilahaa di ko ñeel Cheikh Mamadul Amin nee na tukkib géej gi nag maanaam karaama yi ci am yëpp amul ab yamukaay amul fenn fu mu yem walaw takallaftu bu ma toggoo woon tatabaa tatabuaha seenu toppatoo maa la nga xam ne saxaxtu wéral naa ko min ha ci ñoom wama ak la nga xam ne sami'tu dégg naa ko min al ci mbooloo mi la ataytu kon ma dikki rek bi ma ci loo xam ne yëpp xaru dana not al uqula xel ya wala xarajtu ta kon ma génn an xaddi haasihi al ujaalati ci dëgg-dëggi bile tomb wali zalika ngir looloo tax iqtasartu ma daal di gàttañ lu ala baadi ma ci lenn ca la nga xam ne saxaxtu wéral naa ko minhu ci moom mu ne bu ma jéemoon topp li nga xam ne wér ak li nga xam ne euh, maanaam dégg naa ko ci mbooloo mi rek kon danaa indi loo xam ne dana gëlëmal xel yi dana not xeli ndax bari te kon li ma taxoon a jóg te mooy ab tomb rek boo xam ne dañ ci mën a jog gi ngir xam sëriñ bi kon danaa ko génn looloo tax ma daal di gàttan lu ci li nga xam ne wóorlu naa ko ba mu wóor ma ma jëlee ko ci ay siqaat loolu rek laa indi fii ñi nga xam ne ñu ñuy wóoru lañ seeni wax nga xam ne seeni wax kenn du ko sikk sàkka nee na loolu rek laa dajale indi ko ci téere bi wa zakara mu tudd moom sëriñ bi ne an na sinni an na sinni taxarrubihi naka ati ab tumurankeem samaaniya xijajin juróom-ñetti at la illaa qalilan dara lu néew sëriñ bi wax na ne tukkeem bi lépp lépp lépp juróom-ñetti at la yu tuuti juróom-ñetti at yu manqué ay weer yu néew rek wala ma atam ma ba nga xamee ne matal na maa la nga xam ne kataba bindoon na ko allahu yàlla lahoo ñeel ko mina taxarrubi ca tumuranke ga fi ardi fujjaari sawaadini ci suufus saay saay nit ñu ñuul ñi iltafata wëlbatiku na bihi ak moom inaayatuhu ak jagleem ila rujuu'i jëm ci dellu li ardihi jëm ci suufam li a ngir mu jariñ qawmahu aw nitam bi maata la nga xam ne atxafahu may na ko allahu yàlla bihi ci moom min al asraari ci ay secret fi xaybatihi ca tukkeem ba al mubaarakati ba di bun ba di bun barkeel wal ngir mu tedde bi liqaayi ixwaanihi ci taseek ay mbokkam abraaril bidaani te mooy nit ñu baaxi naari gànnaar yi a atafa daal di walbati ko alayhi ci magi nguur gi farajaxoo ñu daal dellu bi ak moom bi nga xamee ne li suñ borom bindoon ne moom la war a am ci tukkib géej gi mat na ci suufus kàccoor yooyu le booba nag la yi maanaam sunu boroom wëlbatee nag xoli niti nguur gi dégg nga ci ñu war koo delloosi nag ci am réewam di suufam ngir mu jariñ aw nitam ci li ko sunu boroom jagleel ci ay secret ak ci ay mbóot ci tukkib géej googu le ak it naari gànnaar yi nga xam ne ay mbokki jullitam lañ amee ci teraanga jëlee teraanga ju ci daje gi dajawaat ak moom dégg nga loolu tax nag suñu borom daal di tabbal ci xoli gaa yooyu nga xam ne ñoo ko génne woon ñu ñu ñu maanaam yitte yi ñu war koo siwaat nag ci am réewam ci biir ay mbokkam kon xam naa mbokk yi incha allahu bind bi dañ koy yemale foofu tey e, tukkib géej gi itam foofu la yem ci téere bi buñ dellusiwaatee rek daal di e, dugg nag ci mbirum ñibbisi gi sëriñ bi bàyyi ko gi mu bàyyi ko gamoo nag war dellusiwaat ci réew mi. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu